nuyu naa leen si biir limametti point com comme semaine bu nekk ni ma koy def suñu biir émission bi di limametti show xam ngeen ne comme ni ma koy faral di waxee semaine bu nekk ak ki may dalal ndaanaan li may dalal tey nag ma génnaat feneen àndaat ak keneen ko xamante ne ni comme ni ñu koy faral di waxee lu yàgg lu ne dëgg la tabarkàlla macha allah mu ngi si biir aar bi di bay waara moom itam comme ni ñu koy di waxee yoonu ndaw du gaaw muy Pendo na ko ñi ñi gën a xamee ñi ñi ko wax yaama bu seen TV bu mu si neex rek ñu di koy wax comme boobu xew Pendo maa ngi lay nuyu am mbégte lool ma daalee sa kër. waaw asalaamaaleykum Ndeye Pétaw maa ngi kontaan bu baax a baax ah, maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk ci limametti.com di leen wax ne leen ah nuyu naa leen yéen ñëpp daal di la nuyu waale yow sama xarit bu yàgg bi sama xarit démb boobu. <laughs> lu yàgg dëgg la. <laughs> lu so lu la. jamonoy fan. jamonoy sayel la woon jamonoy soirée salaam Diallo waa dëgg neexul jamonoy Alizé ah waa dëgg la. dëgg la boobu ndey petaaw ngi ñuul kook di tak petaaw yu bari. yow nga waaw man ma wow koŋ sew ruuj ñu may woowee juuf Diouf ndeysaan ndax mënoon a fecc nag. lan ndeysaan salaam di ma woowee Abdou Diouf xam nga salaam moom boo ñëwee si yëfam bu xamul sa tur rek da lay wut benn la tuddee. maa la ko bu ànd ak yow ma njool am na ñoo xam ne xam naa leen gis des fois Dakar ñu yëngal léegi ma xam ne ndeysaan xoolal ñii rek. lu ne xew na fi. lu ne xew na barke Alaaji Malick lu ne xew na fi macha allah gis ngeen ko noonu comme ni ñu koy faral di waxee lu yàgg la dëgg la salaam suñu góor googu ñu ngi koy nuyu ndax may door di défilé moom muy door di fecc tabarkàlla dara ñaaw ci nag boobu ba léegi xam nga 2004 ak léegi tabarkàlla la mais mosuñu dégg luñ ne Penda la wax wala lii moo ñu doon wax ñi lay seetaan si biir web tv bi kan waaw ah Penda Guissé nag moom doomu parcelle la maa ngi juddoo Pikine yaroo parcel euh, yaroo parcelle daal di dund nag aar comme sum sama famille yëpp ni ñu koy defee donc man judduma rek fekk ne suñu kër amul a, dama judu, déjà benn ñeño la ñaar ma am euh, jaar ci sama yaay seen seen ñett ma dugg rek ama juddu ar ne sama yaram sama yaram bi arla. ar la waaw dama ko fekki wa wa wuti ma ko daal maanaam dama juddu fek suñu kër ciowli ak sabar yi ñu diko for du deug kon suma magge luma lu yor dama koy jëndé galagne fasiyene teug du deug comme ni ñuy wax non voilà lu juddoo ci bisaab Yaro ci Dakar ken du ko laaj forox ndax tol lay def. duma ko màcc man duma ko bëgg duma ko màcc mais Penda Guissé ñun ñi ñu ko bàyyi xel ah, ngay and ak mama sen mom nga wax ñu koy nuyu de passage mu nek maire bu baax ñu lay gis ngay and ak mom di tasu ñu bari sax dañ ne pen dafa yeexa tasu parce que machallah talent bi ci yow ñun ñi la yàgg suivre xam nañ bu baax li nek ci yow li nelaw ci yow. deug la waaw waaw sen nag mom dama koy walé bu baax baax diko ko ñaanal guddu fana ah, mom lepp defe ni mom la parce que nak nit di nga judd sax ah, am lu nek sa yaram mais boo amulee koo xam ne da koy yee du yeewu te sën dafay yee li nekkoon ci man ñu bëri sën sën fi ñu daje woon dañoo amoon benn publicité bu ñu doon def xamuma xamuma ko ñu daje si publicité bi euh, de passage sax warga boobu amatul warga Touba ñu doon ko publicité ñu gis ko nag léegi bi ñu ko gisee comme sën dañu doon souvent dama leen doon seetaan yi bu ñu doon def seen podium yooyu yàlla dogal ñu daje fa nag man ak moom ñu boole ma ak moom mu di ma muy ñu koy fay di ma fay bi mu demee moom tam ba commencé def ay affaire am si la nag jël nag euh, groupe am teg ko sama loxo ma nekk chef groupe am te ñi fa nekkoon ñëpp ñoo ma mag maa fi gënoon nekk xale donc mu ma indi ami léegi nag moom tam ak groupe ay tout ñuy ànd donc seen liggéeyam yu bare bari yoo xam ne man maa ko doon defi donc bu ñuy dem dëkk sax man maa koy jiitu defar terrain bi ba pare moom dañuy fekk mu nooy nepp rek mu ñëw daal di doxal ñu topp ci ginnaawam ñu bëri foogoon sax sama yaay la waaw ah, donc maa ngi koy nuyu bu baax a baax xam ne li mu def ci man pertu ma ko. voilà ma yuuxu na nag saaga na nag dalay dóor ak yëpp da ciy bokkaale mais nag doo ko perte aussi. parce que dafa am rigueur bu muy bu muy liggéeyee waaw. Mhm. après ñu jékki-jékki penn ñu koy gis aussi muy fecc léegi feccatoo. feccatuma nag léegi xam nga fecc doolee koy def mhm. waaye amoon ay jamono yoo xam ne ndéygéey fu ma la mus a fekk dama lay gaañ. <laughs> Ndeye Gueye Mbaaco Ndiaye. non Ndeye Gueye Mbaaco Ndiaye ñooñu ñu maa leen dàqoon fecc. Ndeye Gueye maa ko dàqoon fecc Mbaaco Ndiaye maa ko dàqoon fecc Oumou Sow maa ko dàq fecc ak kanati Ndeye Gan Siri maa ko dàq fecc Fatou Waré mii maa ko dàqoon fecc. mais yow ba ngay fecc sax ñoom Mbaaco Ndiaye ak ñoom ñoo ñu ngi Koungheul ñoom Mbaaco ñu ngi Koungheul. <laughs> Mbaaco ngi Koungheul booy Fatou Fatou Waré boobu gii fëlagul boobu Ndeye fi nekkoon di la jël ñu wit Ndeye la woon ak kanati Ndeye Oumou Sow maam Basine Ndiolé. wa ak kii euh, nu mu tuddati sax waay euh, boobu ñoom kii ne ba ki ne bajaan boobu perant boobu ki ne bajaan boobu ñu ngi dem jardin de. <laughs> yaama dafay waajal carrière. parce que ñun sàcc nañu studio. gis nañ yaama di waaj loo xamante ni doy na waar léegi yaama dafa bëgg a loolu lépp nee nañ ma concentré wu si way bi nag lii mooy wax ci. maa la ko wax waa loolu nag fi nga laal nii nag foofoo nooy parce que nag tubaarkàlla boo gasee ba mu xóot. Ah, nga jël dànk suuf nga dànk ko ba mu nooy nga sottiwaat ko ci pax mi suul ko. gane jiwul daa dëkki donc li ñuy wax ne des fois nit nag ah, euh, butéel la mu def la sàngara bay ah, sàngara la mu def la butéel bay xeeñ donc dama fas yéene nag dugg si sama carrière bopp xool yeex na sax nag ñu bari ñu ngi may wax yeex na. mais man dama ne lu jot yomb parce que nag fi ma jaar yëpp ku fa jaar defe naa ne bu jotee da dafay yomb ci yow du dëgg. donc ñëpp kontaan nañ ci loolu ma dugg fas ne dugg studio nag am ay nit yu ma jàppale nekk sama ginnaaw. du dëgg donc ma dugg si studio nag ku mel ni laay Diagne jàppale ma bu baax a baax mbay Ngom jàppale ma Mounas Faye jàppale ma Bijou Sagna xale yu baax yi xam nga ñëpp jàpp si ñoom Xaadim Kase voilà ñi bëgg ma woy dafa bari donc te ma xam ni nag peut-être mën naa ko mën naa génne léegi singalu woy du yàgg dara ma tegaat ci taasu parce que nag lépp si sama deret la nekk xam nga kuy tëdd di gis mbaa ngay xool di xalaat di woy am ay nit yu nekk sama ginnaaw yu ma bëgg donc buñ ma bu ma xee ma dugg ci studio bi buñ ma nee wayal ma way ndax nag laay jaañ sama càmmiñ boobu kooku ku mu dugal ci studio bu la nee wayal nga way ay musiciens yu mag di jàpp ci affaire bi Babacar Seck Moussa Traoré Yatma Thiam xam nga ak Modou Demba sama frère ñoom ñëpp jàpp si donc loolu way rek nga mun a def munoo def leneen lu dul way. aar bi doo ko bàyyi kenn danga koy sa mboxloo. aar bi du ma ko bàyyi kenn itam damaa damaa ñibbi si déggoo lu ma xanaa xam nga Ouzin Keita dafa ne saraax ci digg aar bi. Ah barki Seydina Mohamed Ouzin Keita loolu moo wax noonu xamul sax li xew. man dina dinaa génne yu bëree bëri man dama ni pëtëx ci biir aar bi. dëgg barki Alaaji man sama yëf laa jël. dëgg la aar bi xam nga xeexu mbooloo la doo xam ku la mais sama yëf laa jël. te tam dama génne fan yi dama demoon benn xew. wooy fa benn affaire bu neex boo xam ci mbëggeel lay wax xam nga xale jigéen dañu sonn yéen xale jigéen da ngeen a sonn seen xol yi dafa yàqu. ñii ñi ngi jooy ñii di naan eau de javel ñii di naan xeme. du dëgg ñii di su ah lu ko fi jarul xam nga xol yow xam nga xool xam nga xale la xaw ma si yooyu dara moo tax. <laughs> guddi ñu yenn yóbbu hôpitalu wax ci way wi dama ko wax ci way wi dama koy sama benn xarit. dafa mosoon souffrir ba ñu ko yóbbu hôpital hôpitalu sami bii. léegi nag looloo tax ma fent way woowu ma ne tëdd naa ba xaaji guddi ñu yenn yóbbu hôpitalu sami. Mhm. docteur bi foogoon ni dama feebar boobu feebaru ma mbëggeel damaa gaañ. donc léegi bi ma ko woyee nag. bi ma ko woyee mu neex nit yi. Mhm. te may woy loo xam ne daf ma dal dal sama moroom dal keneen ak keneen yow mi dal na la nday souffrir nga ba. non man affaire mbëggeel xaw ma dana xale laa. waaye tam bàyyi ma xale laa itam xale laa xale dina wax fi wax waxu sayel waxu sayel ak salaam jàll gu yàgg ga xale bu ko waxee day dañ koy jàpp comprendre nga. donc ñu jublu ci loolu nag ci carrière ba ma woy ko mu dal ma dal samay xarit te li may wax nii li may way man toujours samay woy woyu mbëggeel bii nii dama ko daf ma dal dal ay nit yu ma jege moo tax xam nga nit nee nañu oh, lu jóge ci xol day dem ci xol li may way dafa jóge sama xol moo tax te xam naa ne xol yëpp lay dugg comme woy naa ko fenn nag nit ñi bëgg. yow da nga mën a bëggante yow mbëggeel la tàddee lu bëri sax. waaw man mi la bëggeel tàddee man mi. laay oh. laay laa kon yow comprendre man bëggeel tàddee lu ma yow ndey yow yow ndey fettaa mi. yow lay sosal. mu koy sosal man sosal nga ku mën a sos man bëggeel du ma tàddeel yow sa waay déggal Sadio maane kenn du moom <laughs> ñii kii laa bëgg Sadio Mané. Karam Sadio Mané ak Karam Mbodj non non samay xarit lañ nag samay xarit li ñaanal bu baax a baax ah dégg coupe du monde bi nga xam Sadio Mané ngay wër man ma am Kara lu may doyee Sadio. Ah, kara sama xarit la. ku Kouyaté sama xarit samay géer lañ tubaarkàlla abaa xam na li may bu fi toogoon léegi mu ne ma. Dóor Cheikhou Kouyaté Sadio Mané Kara Mbodj bal Diao Balde ñooñu dalaa ci xam uh-huh. ak. Euh, kii Alioune Cissé waaw ah, moom gaynde la waaw dañ leen ñaanal ñoom itam ah, ñu ngi si réussi yàlla may leen ndam parce que bu amee ndam ñu ñëpp am ndam waaw yaa nag mu ngi si projet instant mu ngi si way wi mu saf sàpp dëgër temps yi déggoon naa fi benn sotti nga naa maa xaw Alima Ndiol du ngeen tuddante xaw la nag la nag la nag la te Alima sama xarit la yow sama xarit nga non waxuma Alima duñ tuddante de <coughs> c'est que xam nga lan la dafa am kenn ku ci xaw a wax sax seen benn naataangoo na fi jeey moom a wala Dinamo Z Nafi Dieye bàyyi ma li laay war a suul yaa may tooñ Nafi Dieye bàyyi di ma tooñ. moom moo kan Nafi Dieye. Nafi Dieye benn journée comme yow mi ni ngay def yii di kii wër rek tàllal nit ñi ay micro di ma tooñ Nafi nag mi ngi tooñoon na ma wal fajiri ma woo ko moog Coro Mbaar Ndiaye Nafi Dieye ah li nga wax Alima da wax loo ma la ko. non ni mu ko ko waxee moom ma metti quoi le fait que le fait que mu waxee ko no xam nga yéen si li ma metti ngeen nekk. loolu moo ma metti quoi. la gën a metti sa ex collègue la ñu waxee. kon yow bu ñu a metti sa àdduna mooy loolu nga ne Nafi Dieye. non teg lu ma gën a metti nag pour lan est-ce que maguma Nafi Dieye ma njëkk koo dund xam li xew ci réew mi moom mu war a naan per vital ak dynamogène yëkkati tuuti yëfam <laughs> Nafi dama bàyyi Nafi Dieye bàyyiwul <laughs> non ni mu ko waxee moom ma metti quoi parce que demeewul noonu c'était pas ça bëgguma si woon sax waxaat nag parce que sama staff ak ñi ma bëgg ñëpp nag sama gi nee nañ ma yooyu bul ko waxaat am naa wax yu futilité yoo xam ne jaru ko mais nag dafa am loo xam ne man Sénégal laa dëkk man du ma ne kenn benn journaliste bàyyi naa la ak yàlla gis nga li ñuy wax ay déedéet bu leen tontu pour lan yéen ngeen ay nit ngeen ñëw sama biir kër man du ma journaliste sànq kaay la ñaari affaire yenn ci journaliste yi jigéen ñi am na si ñoo xam ne ñamewuñ ma woo parce que bokkuma ci yooyu yow dangay sama nit di sama xarit muy Demba kaay ma wax la ñaari fet journaliste bu xale jigéen yu ndaw yi nii laa wax yéen yéen wu rekk ci gu tuuti googu noonu. ku ciy wax nag ma ci boole sama nit nga yow sama joo nga yow doo ma wax parce que xamul tax danoo rampendoo yow danoo bërëngandoo du dëgg mais dama bëgg journaliste buy poser nit question bi ko wax ci nawleem bëgg ñu seetaan sa yëf bu mu tax nga sosal doomu aadama waxuma aliment du sama xarit ni ko na fi waxee noonu du dëgg du woon côté boobu laa waxee dama ni ki def ma laaj nan nga defoon ak jigéenu seen TV yi man ko samay xarit lañu parce que yaawa daf may seet ma di ko seet est-ce que nga Adja di ma seet ma di ko seet mu ne ma Alima man ko non Alima nag ma ak moom peut-être dañ dul lu ñuy gisante bëriwul foofu laa waxee voilà bokkuñu côté bu ñu demee bokkuñu ay heure c'était ça mais Nafi Dieye booy laaj Alima da nga koy wax li nga xam ne looloo ne bëgguma si woon sax waxaat nag ndax intéressé wu ma wax boobu mais dama c'était juste que Nafi Dieye dama bëgg buy laaj nit yi question mu bàyyi question yu metti yooyu muy wax xam nga man damaa pànk te bu ma daje woon ak moom léegi léegi si mbedd dama koy réglé man man amul dama naan ko Nafi Dieye mu ne man ko yow dama bëgg laaj lan mooy sa problème ak man mbaa nga ñëw laaj ma ni Nafi di demee kër nit ñi na ma laaj man lu xoolal lu jaaxal journaliste na ma laaj man ragaluma presse xam nga lu tax ragaluma presse sos moo fa am ak bindal nit lu dul dëgg te defe naa ne dofuma dina jàpp ma ci dëkk bi fii laa dëkk lu ma nit bindal lu dul dëgg dama lay porter plainte parce que dama ko décider loolu mayetuma benn journaliste bu ma bindal quoi que ce soit wala lu ma neexul du ma ko may journaliste parce que nag sénégalais lambda yiy dugg ci internet bi xamuñu li xew li si bind la ñuy defoon ne dëgg la ñuy commentaire nga xam ne seen yaay commentaire rek la leen liggéeyal ñooñu di la saaga te yow nga gën leen sa yaay gën seen yaay sa papa gën seen papa ñu di la saaga ay sa non li may xam nga lu tax mu naqari ma parce que Sénégal dañuy wax ne des fois bul tontu. pour lan ba duñ tontu ñu ay sénégalais comme ñoom mais am na kilifa yoo xam ne doo leen bindal dara boo ko bindee doo fanaan sa kër mais pour lan léegi nag xoolal danoo engagé jël naa sama ay avocat jël naa sama ay yépp ku ma bindal lu dul yoon site boobu dama leen di porter plainte ba fu mu yem neex lu ma am jël parce que nit ñi danoo sonn ay jigéen lañu bu nu yàq sunu sunu sunu sunu sunu sunu sunu àdduna te lu ndawa ndawa ndaw ñu yàq sa àddina ñi nekk Europe si internet rek la ñuy gisee li ñu gis dañ koy gëm dañ koy appliquer te pourtant lu ci baree bëri lu ñuy bind si internet du dëgg mës naa ko wax ay journal cinéma pour lu tax nga wax loolu man ko man maa ko wax j'assume maa ne li ñuy gis lu bari ci internet du dëgg parce que dañuy fabriquer am na nit koo xam ne boo ko bëggee xool te gisuloo ko da nga koy sosal nit bu la rawee da wut xeer sànni ko rafetal leen liggéey bi parce que amul njëriñ Sénégal am na lu bëree bëri lu ñu war a wax yow nit ñi danoo sonn danoo xiif ay ndox di manqué ñu nekk ci yeneen gaam ñu war a wax li insécurité bi am ci biir dëkk bi est-ce que nga yooyu dafa gën a am importance que ngeen di wax ngay ñëw rek wax ci benn affaire wala nga dem bëgg lu neex benn du si nga dem ne ko diw waxoon na la lii ak lii loolu du liggéey bi rafetalu ko. parce que xam nga lu tax àdduna du yàgg ba nga wax ko ba kooku ñëw fekk ko mu toog mu dóor ko loolu amul ci àddina. donc man damay bëgg kuy questionner nit nga laaj ko li ko saf mu wax la ay projet man sama projet mooy dama nekk ci yoon damay génne single bientôt def ko clip Sénégal gis ko ñu xam man sama liggéey lan la woon c'était ça du dëgg donc man nekkuma fi sax pour polémique mais yéen dama leen di menacé waale yéen xale yu ndaw yi journaliste yu tuuti yi. gis nga man <laughs> waaw waaw dama lay wax rek. <laughs> mais boo ngeen moytu ma de Nafi Dieye yow ak kan la Nafi Dieye ak kan la yow kuy def yooyu Nafi Dieye ndey pertaaw ak kan xaara damay xalaat ak kii pël bu rafet. waaw pël bu rafet moom ñam na ma moom. moom ñam na ah. pël bu rafet. ñam na moom laaj ko ah. ñëw na ba fii daan ma kii di sama xuloo waale man ko te ba tey juguma ci li ma la waxoon nekkuma ci yooyu de du ma doy samay morom ngeen li may sol ngeen di sol man judduwuma de kaay ma la rek tubay ngeen di sol tubay laay sol da ngeen di sol sorte dama koy sol da ngeen di def grand bu ma di ko def ngeen di def tay ma di ko def mënu leen ma ëpp leen ma doole journaliste bu jigéen bu ma ci sosal mbaa nga waxal ma lu dul yoon Serigne Babacar Sy xam na ne bu ma dajagee ci mbedd dootoo ko dolli yéen journaliste yëpp laa wax da leen bindul yaa ngi yaa ngi menacé nag ay jigéen ngeen ko man léegi tu fais des menaces quoi non je fais <laughs> na fi dama koy wutal père vital ak dynamogène nga naan ko am tuuti yu baax dëgg neexul na fi da maa ñëwee bàyyi ma na fi. <laughs> waaw man nag maa ngi tàggatoo di wax sama euh, waa Sénégal yi maa ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëmaa ah. waa lépp loo xam ne nag tamit wax naa ko fi ah bu fekkee lu bon la maa ko wax mais bu fekkee lu baax la yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp ah c'était juste que dañuy damay déconné nii rek pour wane sama li nga xam ne moo nekk ci man. du ndaw laa rek nag tam ah, di soog a door bëgg a dimbali samay way jur ak samay mbokk. loolu moom si tax a jug donc maa ngi gërëm ñëpp ñëpp ñëpp di sant ñëpp di sant sama xarit bi nga xam ne tubaarkàlla moo toog borom ñaari ngara yi kooku ne xamee na ma ak moom donc Malick Gakou ngi nii si télé bi kontaan naa Malick daf maa neex daal kii yóbbu na dafay yóbbu samay wax caaw caaw.